asalaamaaleykum mbokki internet bi Bpactu.com ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal comme ni ngeen ko gisee nag tey dañoo ñëw si fii si Alkimia fekk ci waa daara ji muy Fada Freddy ak ndongo ji ñoom nag kenn dootu leen ko présenté ñoom ñoo nekk ci monde hip hop bi amul fu ñu yëngalul ci biir àdduna ñu du koy defee nag ñu commencé ci ki nga xamante ni moo di ndongo ji nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay fay euh, maa ngi kontaan bu baax a baax a baax euh, ci dalal bi ngeen ma dalal. Euh, c'est vraiment un plaisir quoi. Donc euh, merci beaucoup en tout cas jërëjëf. le plaisir moo revient alors euh, ndongo ji ñu gis ni ngeen nekk group group boo xamante ni euh, yàgg ngeen yëngal Sénégal fu ñee daara ji rek ñëpp xoolaat leen ngeen def ci hip hop loo xamante ni c'est fantastique lan mooy seen secret. waaw secret bi du du pour man amul secret sax parce que musique boo ci nekkee moom da ngay da ngay liggéey. def loo xam ne nit ñi mën nañ ci teg seen bët mën nañ ko dégg aussi teg ci seen bët donc ñun li ñuy def ça fait des années ñu koy def euh, te dañuy dañ ciy sant yàlla parce que au moins euh, li ñu wolof day wax weddi gis bokk ci xam nga weddi gis bokk sànq laa toog sama kër euh, am ñu doon seetaan ñu teg clip dernier clip bi quoi fekk gars yi teg ay clip yu bari ñu teg suñu clip ceekule ma xool clip bi ma ne waaw c'est ma ma xool ko vraiment avec avec quelqu'un avec un regard de et je au moins lii c'est boo xam ne mun naa ko di si trente quarante ans mun naa ko défendre parce que nekk na loo xam ne euh, defuñ ko ci ay fla-fla comme li gars yi di wax xam nga c'est un travail boo xam ne ñi ñi ñi ko ñi nekkal ñëpp même ki may liggéeyal Fada ak euh, ñi nga xam ne dañuy accompagner groupe bi dañu am rigueur quoi xam nga rigueur boobu même ba ci studio li ñu doon job studio ci album bu bees bii nga xam ne mu ngi waaj a génn lépp rigueur lañ koy defee amul lépp lu ñuy lu ñuy def ay à peu près yooyu donc. secret bi mooy mooy liggéey mooy liggéey et puis lépp lu ñuy def on y va à fond on ne fait pas euh, de l'à peu près su may bind un texte même si c'est quatre mesures je me prends la tête xam nga waxatuma laa mooy prise de voix mix bi mastering bi bu ñuy def clip bi écriture clip bi ba ci réalisation bi plateau bi yooyu yëpp bu ñu ko def même bu def scène gis nga préparation ñu bëri sax boo leen di wax groupe bi day def ay sound check dañuy ñëw def sound check xool vérifier affaire yi quoi xam nga donc yooyu yëpp. laa mën a wax pour tënk nekk secret bi c'est voilà seul le travail paye. Euh, gis nañ ni yàgg ngeen ci wan ngeen ñu bari yoon bi tey jii ñu bari wuñ di dugg ci hip hop mën nañ waa daara ji moom mooy seen référence mais tey nan ngeen gisee monde hip hop bi. waaw ni ko gisee mooy mooy nekk na benn benn musique boo xam ne mu ngi imposé wu mu ngi imposé wu parce que man daal ay y a quelques années doon naa ko wax waxoon naa ko ay nit na leen d'ici cinq ans la musique urbaine va prendre la place. mais peut être ñooñu bi ma leen koy wax bàyyiwuñu xel ci li ma leen cinq ans y' dix ans dama ko doon wax. la musique africaine urbaine boole bu mu am instant yi taxaw naa Paris di ci waxtaan ak kenn quoi ma ne ko dans quelque temps vous allez voir que la musique africaine va prendre la place quoi mu ne ma non xam nga affaire yooyu mais xoolal tey boo demee Paris. club yi wala concert yi foofu da ngay gis ne gars yi de la musique naija africaine du hip hop africain de l' afrobeat la pop qui vient d' Afrique et cetera ak ay musique électro quoi donc tey ji urbaine sénégalaise dem na am na ampleur léegi nag li des mooy naka la ñuy def pour affaire bi ñu mën ko exporter je pense que foofu la gars yi di buter chaque fois te loolu am na ñoo xam ne am nañ clé bi am na ñoo xam ne am nañ clé bi am na ñoo xam ne nag peut-être duñu ñu liggéey boobu peut-être loolu taxu leen jóg juste bu ñu marché au niveau local c'est bon mais il faut yi di bàyyi xel même Gambie bi ñuy gis musique urbaine bi dafa am doole léegi concert yi gën a mag ci stade yi. c'est les artistes de musique urbaine quand je dis musique urbaine mooy hip hop euh, et cetera et cetera ñoo koy def quoi donc Sénégal instant yi affaire bi affaire ba ngi am doole mu ngi jeunes yi vraiment les les plus jeunes da ngay gis ñoo xam ne ils ont quatorze quinze ans ils s'intéressent à ça et et ça me fait plaisir. gars yi mënoon nañ dem déglu ji benn Rihanna wala Jay-Z Migos mais tey ils vont peut-être écouter euh, Akhlou Brick Paradise ils vont écouter Elzo Jamdong Dip Doundou Guiss et cetera donc ça y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant nag il faut que artistes yi acteurs yi ñu ñu ñu li gars yi di wax ñu xam ne que ils ont vraiment enjeu bi enjeu de taille la nekkul affaire de euh, phénomène rek quoi enjeu de taille la c'est une musique boo xam ne ça peut représenter tout un peuple et on peut on peut proposer des solutions au niveau social au niveau politique et cetera quoi donc pour man loolu daal moo ci sama xalaat bu gàtt. comme ni nga ko waxee léegi rek au niveau international foofu la ñu gën a dégg léegi daara ji que fii nii ci Sénégal lan moo waral loolu dafa mel ni yéen Europe ngeen gën a gën a wane seen bopp jamono ji. yaa ngi may boole gars yi de <laughs> non ñun bon euh, la différence entre euh, international beeg fii pour man. pour man sax amul amul trop une différence parce que bu ñuy parce que tey ji boo xoolee événement yi ëpp ñuy def au niveau local lañ koy defee quoi mais xëy na peut-être on est dañu am benn politique boo xam ne des fois nit ñi dañu koy reprocher on est on ne fait pas trop d'interview on ne fait pas trop de télé boo ko seetloo on en fait rarement parce que li ëpp suñu liggéey li ñuy def on le fait ci liggéey bi dañ koy def ci studio concert on est un groupe de live donc looloo tax on est on côté médiatique donc moo tax nit ñi di am impression on est plus à l'extérieur mais non en fait euh, on est organisé de telle sorte que daara ji boo xoolee si deux ans yi on a fait par exemple 2018 on a fait 47 concerts ci Europe on a fait euh, peut-être une dizaine ou une vingtaine de concerts au Sénégal parce que dañ doon préparer album quoi mais li ñuy liggéey ci euh, international bi loolu loolu la ñuy def fii on communique plus sur internet te ñi nekk internet mooy ki nekk New York ki nekk France ki nekk Dakar et cetera xëy na peut-être album bu bees bi di ñëw jeunes yi dinañ gën a bàyyi xel si ñun parce que ñenn ñi dañuy jàpp ni ah daara ji ay old school lañ loolu la ñuy wax quoi mais boo dégloo son yi mujjee génne dangay xam ne lii c'est moderne c'est actuel c'est pas nekkul lu ñu daan def 90 moom la ñuy kon ne def quoi. tu vois ni ko waxee rek seen seen son bu bees bi Cekule. Cekule euh, Cekule lan mooy inspiration bi. lan mooy inspiration bi ñun dañuy dañuy toujours def le le pas entre le le les traditions ak la modernité. loolu la ñuy def chaque fois ceekule euh, mélodie la boo xam ne mu ngi jógee Ghana Ghana la cosaanoo mais même scout yi fii ak militaires yi dañ koy way am ñoo xam ne xam nañ mélodie bi xam nañ way bi mais cosaan bi lañ dul xam groupe bi ko njëkk a bi ko njëkk a vulgariser cee ceekule bi ko njëkk a vulgariser ñu ngi tudd Ozibiza c'était en 1970 donc ñun on a on a revisité un classique de li ñuy wax musique africaine populaire donc looloo tax ñu jël way bi def ko noonu et puis dañ ko mélanger avec euh, li ñuy wax kasak kasak way la boo xam ne Sénégal la fekk baax Sénégal la cosaanoo képp ko xam luy luy luy njulli wala luy euh, bois sacré xam nga lan mooy lan mooy kasak quoi donc moom lañ mélanger ak way bi donc c'est vraiment une chanson boo xam ne yaa a ce côté égo mais vraiment c'est une reconnexion dañu def benn reconnexion ak suñu ak suñu tradition xam nga mu nekk mu commencé par de l'initiation boo xoolee clip bi loolu lay commencé initiation ñuy reconnecté la ak suñu ay tradition ci biir clip bi tamit ci gàttal di nga gis benn benn moment boo xam ne damay sol lu weex moom ay ay ay xaatim quoi ñu bëri xamuñu am ñoo xam ne ñoo ne eh, mais nongo fii dafay niroog yaay jàmmee affaire yooyu noonu en fait boo gisee tableau bi ak xaatim yi li ñu ci def yëpp mooy la charte du la charte du Mandé mooy la première constitution africaine mi nga xam ne mu ngi jógee ci mandeng yi jamonoy temps wu Sunjata Kayita en ay 1222 mooy première constitution bi nga xamante ne nii vraiment africains yi peut-être ñu bëri xamuñu ko moo tax ñu on a tenu à vraiment euh, wax jeunes yi ñu xam ne am nañ patrimoine am nañ trésor boo xam ne mu ngi fi xam nga bu ñëwee ba Sénégal jógee Mandé ñëw ba Sénégal tu as la révolution de Torodo tu euh, yenn almaami yi li ñu fi bàyyi Thierno Souleymane Baal yooyu yëpp moom lañ bëgg a junj jeunes yi pour ko ñu dem vers vers loolu loolu moo waral morceau morceau boobu noonu. mu nekk morceau boo xamante ni nice na trop fan si bégg nañ ko comme niñ ko daan defee rek mais tamit sànq wax nga loo am solo nee nga hip hop bi saa su nekk rek dafay gën a développé ba tax na xale yi am quinze ans sax dañuy dañ koy toppandoo saa su nekk donc est-ce que jekk na kon hip hop jamono ji di am ay clash yoo xamante ni ku ko dégg da nga naan astaghfirullah waaw. xam nga loolu acteurs yi sax ñi nga xam ne ñoo nekk ci loolu ñoo lay gën a mën a tontu sax quoi mais man en tant que quelqu'un boo xam ne yàgg naa ci ci ci musique bi ñëpp xam nañ ne que lépp luy ay ego trip wala ay clash wala yàgg na ci ci musique hip hop yàgg na ci quoi xëy na tey comme ni ko faraa doon wax kere avec internet affaire day gaaw loolu def léegi génne ko léegi ñëpp dañ ciy jot quoi xam nga amul puis amul autocensure xam nga loo xam ne boo toogee sa sa gàlle wala sa studio rek enregistré wax lu la neex génne ko tu waa donc y a pas de censure et et c'est ça qui fait que ça choque c'est ça choque beaucoup de gens et, et malheureusement pour nouvelle génération yu bees yi am na ñoo xam ne xamuñu luy hip hop xamuñu amuñu culture hip hop bu ñu déggee lu mel noonu mun nañ ko répéter dañu yaakaar ne loolu c'est normal xam nga donc loolu mooy danger bi quoi donc xanaa dañuy defaat benn rappel rek à à nos à ñu xam ne que c'est vrai y a le game et tout mais nañu bàyyi xel quoi ñu bàyyi xel ci ci ñi leen di déglu xam nga voilà ça reste affaire de MC la mais nañu bàyyi xel comme li ñuy wax dans trente ans bu ñu toogaatee déglu loolu ban effet lay def ko waaw ñu naan nag loolu ci hip hop la bokk am na ñoo xamante ni seen point de vue loolu la dañoo jàpp ni les clashs et les insultes yooyu noonu loolu mooy dundal hip hop am na ñoo xamante ni réaction boobu lañ ci am après sorti son yooyu noonu. waaw xam nga Sénégal nit ñi dañoo ils ils aiment le sensationnel xam nga dañoo bëgg sensationnel dañoo bëgg euh, comme li ñuy wax rek le buzz quoi xam nga donc loolu ça alimente sa alimente le mouvement je comprends hein je sais que même médias yi loolu lekk la pour ñoom xam nga mais malheureusement euh, man en tant que quelqu'un qui est vraiment bokk ci fondateur culture hip hop bi je sais que à l'époque loolu daan na am daan nañ daan na am comme comme làmb ji rek ku nekk ne maa mën sa morom xam nga mais y une euh, benn concurrence bu saine moo amoon y avait pas de y avait pas de l'animosité quoi et malheureusement li may sentir man ci affaire bi damay sentir ne am na animosité quoi quelque part même bu fekkee ne c'est de l'art le fait nit wax la bena affaire ci benn son nga reprendre yow benn son am noo waxeek moom xam nga ak ak punchline yi gars yi di utiliser c'est c'est de laar mais bu ñu fàtte ne art aussi art pour man ça nécessite de la beauté aussi xam nga ça nécessite de la beauté et plus ñuy pousse nag lool la ñuy loolu la ñuy ñàkk quoi dañu nar ñàkk côté le côté beau du truc y aura plus euh, côté artistique quoi. Ah, duñ la retenir longtemps parce que gis nañu commencé nañu mais dañuy jeexalee benn question rek situation actuelle dëkk bi fi mu toll nii te dañ rapport porteur de voix la yow ban kàddu ngay sànni ci actuellement dëkk bi nu mu toll nii situation yi fi nekk. waaw situation dëkk bi moom man en tant que citoyen en tant que quelqu'un boo xamante ne nii li li ñëpp di dund laay dund problème mu courant problème mu ndox euh, la cherté de la vie et loolu yëpp la ñuy dund donc naturellement dañ koy. dinañ koy wax ci suñu ay son euh, naturellement dañ koy dund et dañuy dañuy dañuy en dañuy ñaaxaat les autorités donc loolu sama kàddu man loolu la dañu gën a ñaax dañ leen di gën a ñaax ñu xam ne que ils ont une mission boo xam ne euh, l'Afrique instant bi Afrique ci boppam wala Sénégal sax laay jël cas boobu laay jël gars war nañu y a vraiment euh, enjeu bi dafa dafa dafa rëy enjeu bi dafa rëy là on est en de de parler d'une nouvelle monnaie xam nga population yi am na ñoo xamante ne nii problème yooyu noonu boo leen koy expliquer sax du ñu comprendre parce que da ngay yeewu am problème mu dépense am problème mu faju et donc je pense que yooyu situation yooyu la la la la autorité yi war a war a war a war a résoudre war a régler problème yooyu la ñu war a régler donc je crois que egg nañ foo xam ne artist bi casquette bi mu am wala rôle bi mu am loolu la c'est d'être au côté des population te ñun. lépp lu ñuy def dañ ko ciy boole suñu album bi album boo déglu dina am toujours ay son yoo xam ne ça parle toujours de ça yaa am morceau ci album bu bees bi mu ngi tudd jot na moo nekk ci fin wu clip bu ceekule benn extrait bu ndaw moo ci nekk ça parle de la situation de de l' Afrique et du pays en général donc bu ngeen ko dégloo di ngeen xam li ma leen di wax quoi. Ah, bu ko defee rek ñu jaajëfal la bàyyi la nga dellu ci liggéey bi xam naa ne ñoo ngi lay retenir pour longtemps et merci ci interview bi nga xamante ne accordé nañu ko ak temps bi nga xamante ni tamit euh, jox nañu ko. merci beaucoup BP Actu Daara J Family Ndongo di yaa ko tey xame nga ñu Yama Tele is coming Yama Tele mu ngi ñëw cee cee kule cee ko wissa ko wissa langa aywa